jere ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fa seen a ñëw nuñ koy defee ay bés bu nekk dégtal leen li nga xam ne moo di seen chronique tey seen chronique ñaari poñ lañ fa seen jukki bi ci njëkk mi ngi jëm ci dossier xalifa ababacar sall beneen bi di jàngat boo xam ne war nañ ko mën a def ci benn communiqué bu bàyyeekoo ci APR dañuy faral di wax ne sàcc ndënd yomb na waaye am foo ko tëggee moo jafe man ci dossier xalifa sàll dañoo sàcc ndënd borom ndënd di leen xool ñu gàddu ndënd mi dem ca ma di ko tëgg askan yépp di leen xool waaye yàlla ci def ci tëgg googu saful neex saful naqadi tëgg li saful neex saful naqadi bu yàggee sax nga ñeññ yow miy tëgg mere askan wi te defuñu la dara yaa sàcc ndënd borom ndënd di la xool nga yóbbu ko ci penc askan wi dëgg mu di la xool ngay tëgg ndënd li waaye yàlla ci mandutem def sa tëgg googu saful neex saful naqar décision ko ci CEDEAO daanati état bu Sénégal ndaxte kenn du ne guleet ci dossier Karim Wade lépp yu avocat Karim Wade yóbbu ci cour de justice bu CEDEAO dañ cee daan état bu Sénégal lu ci doy war nag moo lu avocat yi di yëkëti ko yobbu ci cour de justice bu CDAO njëkk nañ ko yëkëti fi ci ëttu attéka yépp ñu bañal leen ko jox dëgg gi état bi mu nekk lu doy waar nu yàgg kañ te mu nekkit lu ñu gëm xam-xam bu sunu magistrat yi am ndax nag fépp ci àdduna bi taxaw nañ fa gil sénégal léegi nan lañ mën a comprendre dossier politique yépp lépp lu avocat ñi ñuy bundu xatal di leen xoññañal yëkkati si juridiction sénégalaise yi magistrat yi ak juge yi lankal leen ko bañal leen ko waaye bu ñu demee ci beneen juridiction boo xam ne ñooñu dañuy tëddee njaaxanaay rek ñu jox dëgg karim wadd wala ñu jox dëgg kii di xalifa sàll jar naa xel loolu nan la mën a nekkee loolu indi li nga xam ne ñoom ñu ngi koy joytu waa union des magistrats du sénégal seen président du teliko ñàkk indépendance bi nekk si justice ñoom ñoo koy wax de ñoo ko waxal seen bopp ñun dañuy def lu dul topp ci dem na ci ba magistrat sax démissionné ibrahima dem mais loolu rek lu muy dëggal mooy ñun ñi nga xam ne yàgg nañu yëkkati ay kàddu di wax ne nañu rafetal mbir yi teg ko ci yoon yàlla wane na ne lañ doon wax du ñun rek ko xalaat wala du par parloo moo tax ñu doon wax dafa fekk ne rek ci dossier bobu bari na ay rek rek yo xamne ci walu procédure bi lepp yëkëti nañ ko di leen chronique yépp 2017 ba 2018 yàgg naa wax ne man li nekk ci biir dossier bi soxluma waaye procédure bi nuñ ko jaaree yoon bari na ay rëq-rëq yoo xam ne day dem ba day toon banditisme judiciaire banditisme d'état maa tey lu neex laay def Mayor yor doole ji may dóor ci kaw nit ñi kenn mënaluma dara waaye rek la may faral di wax de sàcc ngeen dënd li dem ca penc ma di tëgg borom dënd di la xool askan wi di la xool waaye tëgg googu mujj saf neex mujj saf naqadi ba sax fi mu nekk nii day sama yoon nekku ci m'en fous je fais ce que je veux saa buñ doon wax New wax Sénégal c'est un état de droit nous faisons confiance à la justice Dakar matin ñep d'accord nañ ci lolu Sénégal limu signé ci ay convention internationale ak protocole ngir jëmmal ne mom état de droit la lak mënu ko jéxal waye état de droit est-ce que dafa yam rek ci signer ay convention ak ay protocole te nga ne do a jëmmal protocole yoyu wala convention yi rawati na ci xexu politique ndax lepp lo xamne ñu koy ratifier as le convention ci le protocole newna lo respecté nañ ko kon mu mel coup de bluff soob ñu ñew une décision CDAO bi avons bind noir sur blanc le droit à l'assistance d'un conseil le droit à la présomption d'innocence et à un procès équitable de Khalifa Ababakar Sall et des cinq autres requérants ont été violés Manam, dañ ko kenn respecté wu ci lenn musuñoo dañ di wax lu ñu mel ba ñu tàmbalee ba tey ji képp ku ñu déglu dañ di wax ci lu ñu mel nguruk sénégal moo dem signé article 5 bu règlement bu UEMOA buy wax ne képp koo xam ne police da la woolu gendarmerie wala nga dem ci justice sa avocat day toog sa wet question bu la mën laaj mu xelal la yéen a ngi fàttaliku ba ma ko fi yëkkatee di ko wax na leen violé nañ loolu ñu ne dañ dan wax rek tey cour de justice CEDEAO dëggal na liñ dan wax gantal nañ leen ko fii Sénégal waaye cour de justice bu CEDEAO dëggal na ne lañ dan wax ne dañuy violé ay droit yu Khalifa babacar Sall dëggal na ma fàttali leen le 21 février 2017 ba khalifa ababakar sall mbay touré demee dig maître elage diouf dugg day toog seen wet manam jëmmal li nga xam ne moom la ñu dogal ci assistance avocat dañ ko ko bañal ko ko fàtte xaju fi ñu leen kaddu yi nga la maître elage diouf je me suis présenté devant le commissaire chef de la DIC pour lui signifier mon intention d'assister mon client Khalifa Ababakar Kersal. Le commissaire a refusé systématiquement ma présence aux côtés de mon client Khalifa Ababakar Kersal en violation flagrante des dispositions pertinentes du règlement 5 de l'UEMOA dispositions qui sont d'application immédiate, qui ont d'ailleurs été incorporées dans le droit positif sénégalais de façon superfétatoire. Mais quand même, j'ai insisté, ne serait-ce que pour voir mon client, pour lui montrer que je suis venu l'assister. Le commissaire me dit, pour une minute, je vous permets de saluer votre client. Alors que c'est la loi. Je ne demande rien au commissaire. C'est un droit, un droit reconnu et par lui et par l'Assemblée nationale du Sénégal. On dit que l'avocat peut assister son client dès son interpellation. Dès que le client est entre les mains de la justice, entre les mains de la police, il peut être assisté par son avocat. Le commissaire de policiers opposé, il me dit que ce sont des instructions reçues de la hiérarchie. Il faut aller parler à monsieur le procureur de la République. J'ai dit, net, nous exigeons le respect des droits de monsieur Khalifa Abakar Nous n'avons rien à commander auprès de monsieur le procureur de la République. Et quand il m'a permis juste de voir mon client, je lui ai dit de ne plus répondre aux questions des policiers. <laughs> le commissaire dit, mais vous n'êtes pas loyal. Mais je dis, mais c'est vous qui violez les, droits de mon client. Vous voulez que je le laisse Entre vous mais ils sont six enquêteurs autour de lui, sans aucun avocat comme le prévoit la loi je lui ai dit, Khalifa ne répondait plus aux questions des enquêteurs parce qu'ils sont en train de violer vos droits. Parce qu'aujourd'hui, il est entre de six enquêteurs qui violent la loi qui lui pose des questions à l'absence de ses avocats. Et ça, c'est interdit maintenant. Dakar Matin. kaddu yaa ngi noonu nañ ko muy violer les droits de la défense te loolu donne benn principe boo xam texte et moi et ko génne mi ci constitution bi code de procédure pénale bu modifié par la loi numéro 2016 30 du 8 novembre 2016 article 166 moné ne buñ ko violé acte de procédure de nul alinéa 2 article 166 man code de procédure pénale monnaie ne ci wala parke wala fenn foo xam ne dañ ko war a mën a laaj interpeller ko bu avocat am ñëwul toog lépp li ci topp day nul loolu la ñu yàgg wax fii amul dara lu fi bees li gën a doy waar mooy man ma gëm na suñu magistrat yi dañoo xarañ lool am xam-xam macha allah ci biir procès bi ay avocat wu xalifa ababacar sall ak ñeneen ñamu ànd ak yëkkati nañ lu ñu mel juge malik lamot gëm ci ay bëtam gëm ci ay bëtam kon ñu japp ne mom da ko wala mo tay nopi ko bu ko nopi nak kon mom bokku na ci ñu les principes fondamentaux de présomption d'innocence et de droit à un procès équitable Mané, ne xamoon nga que nous dogal nako Sénégal war ko jëmmal ci biir procès bi ay avocat Khalifa Sall bu ci kon ñoo violer principe de fonctionnement de la justice pénale ndax droit de la défense respecté wuñ ko lu gëna doy war ci décision bi nga xamne mi ngi bayeko ci CDAO nga xamne kenn mënu ci def appel def lu la neex rek sanni fele wala nga jëmmal ko bu nekké né état de droit nga république bu normal ngay woté dafa né autorité policière yi ak autorité judiciaire yi ñom ñep sen responsabilité dafa engagé wu ci lolu ci liñu violer manam wa ten autorité engagé wu na ña atté sen autorité engagé wu na police ak justice yépp au bas des accusés ci dossier bi waaw dossier boo xam ne tàmbale gi le lépp yàqu tàmbali bi mooy ba ñu xalifa sall di ko woo dig loolu mooy tàmbali dossier bi ñu ne tàmbali googu dara baaxu ci da ngeen violer ay droit kon la ca mën a topp yépp ta baax la ca topp yépp ta baax lu ñuy wax ne c'est frappé de nullité manifeste ndax enquête préliminaire bi moom moo respecté wul ay modalité yoo xam ne loi moo ko tëral ndaxte tant que jugé gun la ba joxe verdict définitif tu es présumé innocent mi ngi mel ni tey jii nga jënd sa pièce bu rafet jox ko tailleur jëlalu la mesure amaana mën na ko ñaw mu maq wala mën na ko ñaw mu seere ba du la jot le pis ba rafet rafet ak lo len meuna tumal khalifa xalifa sall lii dëgg ba nek deug modi di bi ngeen ko jaarale ngir tek tuma yoy ci ndodam ci ben dara baxu ci legui nak lu xew moy regime bi mi ngi engagé bataille de communication gis nañ ñoo xamne ne déggatul leen fen ya ngay genn di wax avocat état bi dem bay wax ne jugé wul le fond xana ñun liiruñu keuyit bi forme ak fond lañu bind ci keuyit bi mu leer nañ ku ko wax waxu ko bind mu leer nañ nañ bi prononcé na est-ce que respecte nañ droit la défense wax nañ ci mu leer nañ La police ak justice droit de la défense cdao wax na lu sénégalais wax ba Khalifa Sall bañ ko député dañ ko bañ ko élire député ba kérok ñuy salfañé immunité parlementaire am lépp ci détention arbitraire la nekk lépp ci détention arbitraire la nekk wax na mu leer nañ amul dara lu ci sikki sàkk ma wax ne CDAO amul benn moyen bu mën a contraindre état Sénégal CDAO du fi envoyé armée ndax loolu mbir mi kat ànd nawla la ak ànd gor ak andu état de droit ak andu république gor ay kàddoom mo koy teunk état signature mo koy teunk dama na gor kàddoom mo koy teunk état signature mo koy teunk bu respecté wul signature banditisme rek lañuy def banditisme rek lañ ko mën tuddé amul leneen xëy ñu fi nañu oui il faut que ñu total fichier bi parce que dañu wara créer ay carte biométrique lolu fi nek ni CDAO moko dogal te état bu ko deful CDAO dafa joxe ay directive ferme pour état yeb def ko gaawtu def refonte fichier électoral bi mu jur coow lu rëy ñu jëm élection législative plus de 2 millions de personnes kenn votewul ba tey ji am na ñu bari ñu jotewul seen carte fan lañ ko sukkandiku ne directive CDA wala woon da loolu lañ waxoon te ba ñu demee ba ci biir ñëpp xam nañ ne du dëgg ndax ba léegi ñun rek ñooy dëkk bi nga xam ne ñoo bokk CDAO def calcul politicien pour contrôler le fichier électoral daal bu CDAO laaxee jëm sa côté nga d' le CDAO ne le respecté wo état de droit respecté wo république nga ne sama fu nekku ci sama yon nekku ci ñu ñak jëmmal li CDAO wax ñu ñak jëmmal li cour de justice wax duñu bet de def nañ ko ci Karim Wade duñu bet mais nak nañ japp ne image du Sénégal mi ngi mais nak lolu ku bëgg réew mi am fu mu la toll mooy bañ lolu Benen mbir bi dama lire benn communiqué bu am solo bu waa APR génne di tontu waa parti démocratique sénégalais ma rafetlu bu baax a baax communiqué bi ndaxte ay jàngat yu xóot lañu jox ci ay dossier financier yu doy waar yu ñu luubal ci réew mi ñu leen ci doon xaar ñoom ngir ñu gindi askan wi képp koo xam ne nga alalu réew mi ñoo ko dige woon ñu def ci yow la la war moom la ñu toppee xalifa sall bari na ñoom luñ leen cité ci ay dossier ofnac topuñ ci kenn ba yu mujj yi ñuy dégg inspection générale des finances prodac toppuñu leen ci lenn waaye ñoom nag yëkkati na ay dossier yu doy waar xawma ndax bàyyi ngeen ci xel ci communiqué bi am déet ñu ne ci nguuruk ablaye wadd saax saaxee alalu réew mi lañ nekke woon ñun sénégalais yi 2012 ba ñuy changer président dañoo yaakaaroon gëm ne bés bu toogee di ñu gindi ci dossier yu bare bare bare bare bare yo xamne ñu ko doon tuddu muy alal ju bare bare bu ñu lubal tay ji ñom ñu d'accord na dañ ko lubal kan mo bloquer convocation yi créé créé bu karim wadd rek la waron top wala mëni fretin bi ay tay bu ñay ak ñoñu déedéet liste la bo xamne ali ndaw dafa ñew wo journaliste yëpp def conférence de presse ña ca ci liste kan mo bloquer sen dossier kan mo jël ay dossier def ko sous le man waxuma ko de kan moko def ñu jël seen communiqué boobu sukkandiku ci dossier par dossier ñu ne fii ci almadi bi dañoo jël ay suuf estimé ko valeur 75 milliards ñu jaayee ko 9 milliards ci temps Ablaye Wade ba pare ñu ne Wade imposé i presse mu jënd ko ca kañ ko jox ci 27 milliards wax day leer mbakki yu fay la ak Cheikh Amar mais ñooñu ñi ngi gagné ba tey jii ci nguuru Macky ay marché yow nga ne ñu def na loolu ci temps ablaye wad ñoom ñaar la mooy fii monument de la renaissance bi lañ fa tabax ñaar ñu xam na leen ñi ngi fii di doxi seen soxla muy makki fay cheikh amar di wéy ba tey jii di gagner ay marché ci régime Macky Sall xaritoog lool Macky Sall xaritoog lool premier ministre ñi ngi fii kenn mënu koo miim kon kay yow tane woo nguuru ablaye <laughs> ndax boo koy jiiñ loolu te ñang koy jiñ ñi ngi nekk ak yow lan mo fi changer plan tàkkal ñu ne 650 milliards ana audit bi dañ ko genn tek ko karim wad jappé wuñ ko plan takal dedet ni ko jappé enrichissement illicite ku ko gracier ku ko exiler est ce que sénégalais yi loolu la laajoon ci mom kan moko ko gracier kan moko ko ñu dem ci ci communiqué bi bay wax ne ci plan takal am na yenn marché yo xamné ne daawul jaar ARMP lu mel noonu moom ngeen defal Aliou Sall caisse de dépôt et de consignation benn marché dootu fa jaar loolu ngeen ko defal votel ko ko ci assemblée nationale kon lañu defaloon Karim Wade defal nañ ko Aliou Sall est-ce que loolu moo taxoon sénégalais yi doon xeex anosi cour des comptes inspection générale d'état rapport yu mat sëkk lañ teg ci table président de la république 432 milliards ñet tiax tiaxé xaalis bobu yépp tey ji ñi ngi ndata talax ak nguur gi nekk fi kenn mënu ko mim kan mo jël rapport bobu def ko sulu ku nit ñi nga xamné ñu leen tuddu ci rapport bobu ñu xam leen bu baaxa baax ñi ngi liggéey ak ñom ñi ngi liggéey ak ñom ñu né villa présidentielle 52 milliards mais jërul wëri cheikh amar la touba almadi ji waaw cheikh amar nekk fi du fi gagné ay auto Yo tracteur Amna wala amul ñu ne cinquante milliards yor na yor ay villa présidentielle yum livré wul Cheikh Amar Alassane Sall xey subal porte ko plainte ci immeuble euh yum jox ARTP lu ca xew ñu jëlé ko fa ARTP man waxu porte ko plainte dik def conférence de presse ñu xey jëlé fa Alassane Sall Cheikh Amar fait partie des hommes forts du régime ba pare ngeen wax 52 milliards villa présidentielle ñu ne ci Karim wad def nañ fi 1 km 6 milliards lu soppeku autoroute à péage bi lan mo ci soppeku tronçon bi ngeen defar lan mo ci soppeku lu tax état bi amul fit demi suat ci contrat bi fesman ku jël dossier bi duggal ci tiroir corps de contrôle yi ñu ne dañoo nasaxoon taw ablay wad tey lan la corps de contrôle def lu ARMP lan la def lu of nak dee na moom bañ suul ko lan moo fi suratel ñu tudd ne 20 milliards mais dossier bi Thierno Ousmane si tos mi ngi ci liberté provisoire définitive Dakar matin fan la mujj yéen yéen a war a leeral sénégalais yi def nañ ci taw met xablay wad, mais dossier yi yéen a ko war a sénégalais yi jaxaay 52 milliards yëkkati woon nañ dossier bi ba mu dem dikk am ñu ci entendre fan la dan mo ku ci kurel yi nga xawone dañ fay tiax rtp l'ONAS azr lan mo fa ku onas milliards yi fa dugg lan lañ ci waxul épinglé par rapport yi nga xamné genn na armp fa la muju dara kon mu ñoo xass nguru ablaye wad ci lolu parce que ñoon jëlé nañ leen fi yeen ñi fi tok yor dossier yoy yëpp recycler homme d'affaires yi nga xamné ñëpp japon nañ ne dañoo luubal alal yeen sax nga leen ni tam de mëna dañoo luubal alal yéen leen recycler dugalaat leen ci circuit bi loluy deug dañ sant di leen gërëm leen dig dajé seen benen chronique seen site dakar matin point com